tey jii nag ñu fa yéene dikkaat ak yéen ci ab tomb ci buntub asaka sun waxtaan wa jiitu ñu ngi doon waxtaan ci asakay mbay waxtaanu tay wi nag ñu jagleel ko leeral lan mooy asaka ak lan mooy ab àtteem ak lan moo tax ñu yoonal ko ak lan mooy ay chartam comme niñ ko xamé li dafa bok ci programme bi nga xamné mom la wa kër asaka yi di amal mu nekk ab soñé ci nit ñi ak léral ci loolu nak kon li ñi ñëkke moy léral lan moy asaka kon buñ ko bëggee léral moy foog ñu léral ko ci walu luxa walu langue arab ak bi charian ñëwee nan la ko gisee ndax xam nañ ne lislaam langu arab moo ko fi jiitu charian langu arab moo ko fi jiitu ndax euh, alquranul karim ñu ngi ko wàcce ci langu arab jamono booba am na baat yi num ko daan firee bi lislaam dikkee tamit charian am fuqaha am waneen déggin wuñ ci am bu bokkut ak na ko langue arab daan firee euh, looloo tax ngay gis toujours ñu naan luxatan wastilaaxan euh, kon bu dee ci wàllug luxa niñ daan firee asaka daana yore maanaam ak yokkute ak màgg daan yore tamit maanaam barke comme bu ñu waxee ne zakatin nafaqa daana yore tamit maanaam yiw wu bari comme buñ waxee ne fulaan zakin daana yore tamit maanaam laabal comme lu mel ne xadaf laha man zakkaha daana yore tamit maanaam tagg kom falaatu sakku anfusakum kon asaka ci wàllug loxo daana yore maanaa yi yëpp maanaam yokkute akuk màgg ak barke ak yiw wu bari ak laabal ak tagg waaw ci loolu kon ab question juddoo ci muy lu tax kon asaka euh, ñu koy tudd mu mu yore maanaam yokkute akuk màgg ca buñ xoolee day mel ne luy wàññi alal ji ci li ñuy yëg loolu nag euh, euh, buñ xoolee li yonent bi sallallahu alayhi wax ne hmm, loolu li ko waral mooy Euh, loolu nga xam ne mooy jóge ci euh, alal ji loolu dafa nekk ab sabab boo xam ni dañuy yaakaar ci ne mooy yokk alal ji di ko màggal di ko barkeel comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne maa naqasat sadaqatun min maalin asaka du wàññi alal loolu nag al imaamu nawawi am ñaari déggin yum ci amoon firee woon ko ci ñaari anam bu njëkk bi dane loolu nga xam ne mooy jóge ci as ci alal ji sunu boroom da koy barkeelaat day barkeel alal ji fegal koy loraange la ca wàññeeku mu réparé ko barke mu ne loolu nag yaa gees na ko gis ci aada yàggaana nga gis koo xam ne nii day joxe asaka ba pare alalam di gën a yokk di gën a màgg di gën a barkeel mu ne ganeen anam gi mu ko fireewaat mooy Euh, la cay jóge donte day mel ne wàññiku ci kaw waaye wut euh, sunu borom da koy réparé waat ci barkeel alal jooju maanaam so yool ba cay topp sunu borom da day joxaat kooku yool yool bu kawe kawe bu da ko ci fayaat lu lu bari fulal ko ko ba doon ay ay addaaf mu daafa ba nekk ay ful yu baree baree baree bari yool ba cee topp donte am na lu wàññiku nii ci alal ja nga xam ne kon uh, maanaa yooyu la asaka yore ci wàllu luxa bi bu ñëwee ci charia nag bilislam lislaam ñëwee fiq mooy fuqaha yi niñ ko xamlee moom dañ ne maalun maxsuusun min maalin maxsuusin balaxa nisaaban li mustaxiqihi in tàmmal milku wa xawlun xayra maadanin wa xarsin waaw ñu ne kon asaka mooy som ba nga xam ne moom la ñuy génne ca alal ja ci ne mooy asaka ja war som boobee moo xam ab fukkeel la wala genn wàllu fukkeel walla kaaru fukkeel mooy onsru wala rubul onsru wala nisful onsru wala rubul onsru mhm. kon malun makhsus lol lañ ci jublu moy som bañi ñuy min maalin makhsusin jële ko ci alal ja nga xamné ci la asaka war mo xam euh, ak jur la wala mu nek khalis ak or wala mu nekk euh, marchandisum commerce wala mu nek mbell yi nga xamné mom dañuy génnee ci souf wala mu nek am kon loola lañ jublu ci min maalin maxsuusin balaxa nisaaban muy alal jooju nga xam ne moom la ñuy joxe ci muy juge ci som boobu nga xam ne moom la ñuy joxe ci muy jóge ci alal ji fokk war naa mat nisaab nisaab nag buñ ko waxee mooy som ba nga xam ne fokk alal ji àgg ca nga xam ne moom la charian limité ngir asaka ko war ca alal joojee waaw nga xam ne bu ca àggut asaka waru ca kon loolu la ñuy tuddee nisaab li mustaxiqihi buñ ko waxee mooy dañ ko war a jox kon ña nga xam ne ñoo ko yayoo muy xeet yi nga xam ne moom la sa moom la alxuraan tudd ci ne ñoom lañ ko war a jox kon buñ ko joxee ñu dul ñooña boobaa asaka ja du wér kon loolu lañ jublu ci li mustaxiqihi in tàmmal milku mooy fokk tamit moo nit kiy joxe asaka la muy joxe da ko war a moom moomeel gu mat sëkk kon bu fekkee ne moomeel ga matul muy alal joo xam ni dañ koo dénk walla muy alal joo xam ne nii da koo këf wala mu sàcc ko wala yu noonu wala ñu abal ko ko kooku ak moomeelam matut looloo tax ñu ne kon fokk da ko war a moom moomeel gu mat sëkk beneen bi ci des mooy waxawlun fokk war na matum at loolu nag am na ci alal yoo xam ni dañ ca charte am at mat ca waaye am na ci yoo xam ni sartuñ ci am at mat kon bu dee lu mel ne ak jur ak xaalis ak or ak lu mel ne marchandisum commerce yoyu dañ ca sort am at waye bu dee lu mel am bay ak mbell yi ñi genn ci suuf yoyu sartuñ ci am at kon dal non la ko borom xam-xam yi xamlel xamle muy som ba ñi genn jele ko ci alal ja nga xamne ci la asaga ja war te mat nisab ñu jox ko ñako yayo te momel ga mat te matum at ci alal ya nga xamne dañ ko ca sart ndax bu dee am mbay moom ma ngay war ci yowmul xasaad wala bu ñoree bu dee euh, mbel yi ñi génne yooyu mi ngi ware ci ba mu génnee wala bañ ko setalee kon loolu mooy li nga xam ne moo aju ci xamle lan mooy asaka mhm. kon ñu ñëw ci li nga xam ne mooy àtteb asaka asaka ab àtteem euh, fardu ayn la ci bépp julit mooy farata la joo xam ne ci képp koo xam ne nii ab julit nga te am moo xam góor nga wala jigéen ci am lu mat nisaab kon moom benn la ci ponki lislaam yi ñi ngi ko farataal ci atum ñaareel gi ci gàddaay gi ci madinatul munawwara ginnaaw ba nga xamee ne farataal nañ asakay muurum koor asakay muurum koor kon moom lañ njëkk farataal am na ñu ne nag ci atum ñeenteel gi ci gàddaay gi lañ ko farataal waaye lu ci mën a am rek asaka moom ab ponk la ci ponk lislaam yi nekk farata ci ay farataam doon tamit li nga xam ne munta ñàkk ci diine muy luñ xam ci diine tamit te munta ñàkk lii tegtale ne farata nag am na ayaat yu bari yu ñëw di ko tegtale bi ci njëkk mooy wala sina fi amwalihim xaqun maalumun li saaili wal mahrum muy ñi nga xam ne seen alal daa am àq ju ca war yoo xam ni fuqara yeeg masaakin yi ñoo ko moom ak li yàlla waxaat ne wa maa umiru illa li yaxbudullaha muxlisina lahu diin xunafaa wa yuqimu salaata wa yuutu zakata wa zalika diinul xayima ak lim waxaat ne wa aqimu salaata wa aatu zakat ak lim waxaat ne wa aatu xaqahu yowma xisaadihi ak lim waxaat ne wa mimma axrajna lakum min al ardi ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne buniyal islaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaat wa itaai zakat wa sawmi ramadan wa xajji bayt stataa ilayhi sabilan kon loolu mooy li aju ci àtteb asaka ñi ñëw ci li tax ñu yoonal ko lan moo tax ñu yoonal asaka dañoo lislaam daa gis ne asaka daa am rôle bu am solo boo xam ni moom lay suyee ci société jullit ñi ndax day wane ak nawlonte gu am ci seen biir sunu boroom da ko farataal ci képp koo xam ne nii man nga ko ngir mu mën a sàmm moroomam mi nga xam ne euh, dafa ñàkk aajowoo ngir dundu gi mën a yomb sécurité mën a am ci société bépp muy ci ki woomal ak ciki ki ñàkk ñoom ñaar ñëpp sunu boroom bokk na ci li tax ñu yoonal ko mooy sunu boroom da ko farataal ci ñi nga xam ne dañoo woomal ngir laabal seen bakkan yi ci ak nay ngir dindi ci ñoom ak nay ak egoist japp na ñom rek ñoo war am ak ñi dimbulé fuqara ak masakin yi ak ñi aajo ngir timit ñi ñak euh mana am ak ciofel ak mbeggel ci ñi nga xamne am ñoom ngir ñi mana ñongal timit seen alal yoyu ci diko ko wala di ca wor wor wala diko ko nigdise ndax gis nañ ne ki woomal bu fekkee ne mi ngi génne asaka di ci dimbale ñi ñàkk boobaa alalam joojee ñoo ñu nga xam ne dañoo ñàkk dañ ko ko yéene di ko ñaanal mu barkeel ca timit danañ ko sàmmal alalam joojee ba duñ ko ca sàcc wala ñu ko cay wor wala ñu ko def laan ci danañ ko ko yéene waaye bu fekkee ne nag daa teye alalam nangu cee jox kenn jàpp na moom rek moo war a am boobaa nit ñi su ñu ñàkk ñi dañ ko iñaane di ko móolu ak tamit fuñ jekkoo alalam man koo sàcc wala di ko ca wol wala yu mel noonu moo tax kon dimbalante googu dafa nekk lu am solo loo xam nii day nekk day suuxat ak mbëggeel akuk cofeel ci eh, ñi ñàkk ñeek ñi am ñëpp ba tey tamit asaka dafa nekk ak sant yàlla Euh, goo xam ne nii ki nga xam ne moo woomal day mel ne bu génnee da cay sant yàlla ca xéewal googu nga xam ne moom la ko xéewale nga xam ne da koy génne ci ba kanam ci lu dul mu cay ndamu walla mu cay toroxal ki nga xam ne mooy ki ñàkk looloo tax sunu borom tuddee ala la muy génne tudde ko àq la joo xam ni ñi ñàkk ñoo ko moom mhm. buñ xoolee ba tey lislaam dafa ñeewant borom alal yi noon tamit la ñeewantee ñi nga xam ne ñooy ñi ñàkk dalee na ñeewant tamit ñoom ñaar ñëpp ndax nim ñeewantee boroom alal yi mooy euh, warlul asaka ci alal je alal yëpp waaye ci yenn alal yi la ko warlul muy ci alal yi ci alal yi mu ko warlul mooy alal yi nga xam ne jàpp nañ ne ak dimbalante mën na caa am ca timit ab bénéfice bari na ca ca timit ma ngay yokku di màgg bu demee ba mat nisaab kon ca alal yooyu la ko lislaam waral moo tax ba mu waxee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónne sayidina Muaas ibnu Jabal dana ko day danga dem boo demee ci waa ahlul kitaab yi day nayen ngeen leen woo ci ne amul benn buur bu dul yàlla ci ne yonent bi sunu borom moo ko buñ la toppee ci loolu nayen xamal ne sunu borom farataal na ci ñoom ab sarax boo xam dañ koy jëlee ci ñi woomal delloo ko ci ñi ñàkk buñ la toppee ci loolu nanga maa ngi lay moytandikuloo ngay jël la gën ca seen alal ya waaw kon bul jël la ca gën bul jël tamit la ca gën a euh, bon waaye da seet la digg doomu mu ne ko te na nga ragal ñaanu kuñ tooñ ndax kuñ tooñ day ak ñaanam digganteem ak boroom amul benn kiiraay bu fa dox nga xam ne kon sunu boroom dafa farataal asaka ca anam gam gën a mate ak nam gën a jariñe ñu ñàkk ñi ak nam gën a gën cee ñeewant tamit ñi nga xam ne ñooy boroom alal yi nga xam ne kon dafa sàmmoonteeg ci farataal googu wetu ki ñàkk ak ki am ñoom ñaar ñëpp loolu ngir ak cofeel mën a am ci seen diggante ak miinante société bépp mën a dund ci jàmm mën a dund timit ci ak dëppoo nga xam ne kon asaka dafa nekk ab organisation bu munta ñàkk ngir société bi mën a am ak réussir ñu ñëw kon ci ki nga xam ne dafa lànk nag bañ a joxe asaka kon kooku lan mooy ab àtteem ki lànk bañ a joxe asaka kooku Ah, lankam gogu munta genn ñatt mbir yi imma da ko xamut wala mu doon koo xam ni dafa nay wala timit mu doon koo xam ne nii da ko weddi bu fekkee ne ku ko xamut la kon kooku ab atem mooy atem bépp jullit boo xam ne nii da nga réere sarian kon bo ku xamut moom dañ laa war a xamal rek ne la lii la ci yàlla wax lii la ci yàlla dig la lii la tere bu fekkee ne jëfandikoo nga ndigal topp ndigal génne asaka boobaa kon ñu bàyyi la kenn amut ci yaw aw yoon bu fekkee ne lànk na nag ñu xoolaat am mbiram munta génne ñaar yi imma dafa nay wala mu weddi ko bu fekkee ne dafa nay nag boobaa day war ci imaam mu jël ko ci moom far force boobaa daal di koy joxeel nga xam ne yéene imaam ji mooy doon yéeneem bu fekkee ne nag dafa lànk bañ ko joxe wala am mbooloo ñu lànk bañ a joxe asaka euh, lànk googee ñu sukkandiku ci ay ngànnaay wala seen doole ci ne dañuy xeex ku ko bëgg jël ci ñoom kon booba day war ci imaam mu jël ko ci ñoom par force xeex ñoom comme noonu nga xam ne noonu la ko Seydina Abubakar defe woon ba nga xamee ne ma ngay xeex ak ñooñu nga xam dañoo terew woon a joxe asaka ndax ci njëlbeen ak wuute amoon na ci ci digganteem ak saxaaba yi ci ne dañoo war a xeex ak ñoom déet waaye ba leen tegalee ay tegtal yu leer nañ wala tegtal ya leere ñoom ñoom ñëpp dañ caa mujj ànd ak moom bu dee ki nga xam ne nag daa lànk bañ koo joxe ngir weddi ko boobaa kooku moom dañuy jàpp ne ku génn ci lislaam la dañ koy jàppe ku murtat wala yaasu billah boobaa ko wa ku murtat lañ koy àtte boobaa dañ koy tuubloo ñetti fan ci biir ñetti fan yi bu fekkee ne tuub na ci mboobaa euh, bu tuubee nangoo joxe asaka kon bu boobaa ndees koy bàyyi mu delluwaat ci lislaam comme ni ko alxuraan waxe na فإذا انسلخ الأصفر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخصوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وخادنا لا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين كون كون دنجكوي باي وات رك way fekke ne ñatt fan yi jeexna nak mu lank baña asaka baña a boba koko mom dañ koy jappé ab yéfer des koy ray ray gétan té des ko sang des ko sang desko ko sule des ko sul ci jullit ñi kon lool moy atep ki nga dafa baña Joha joxe asaka ci aduna bu dé ci alakhirah nak amna ay takku yu ko alcorane def yo xam ni moy lam wax ne wala sin ne az zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim yawma yuhma alayha fi naari jahannam fa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fasuqu ma kuntum taknizun waxaat ne wala yahsibanna allatheena yabkhaluna bima ataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquuna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah ma ne kon alxuraan wax ne ñoo ñooñu nga xam dañoo lànk bañ a joxe asaka boobaa seen alal yooyu bu yowmal xayamee dañ koy tàngal ba tàng di leen ko ñaas ci seen xar kanam yeeg seen wet yeeg seen ginnaaw yi man leen lii mooy li ngeen daan rënk ak di ko soppi ay jaan di leen ko ràng ci seen kaw yu mu leen di màtt kon loolu mooy atteb ki nga xam ne dafa lànk bañ joxe asaka ci àllaaxira ñu ñëw kon ci li nga xam ne mooy charti asaka xam naa ci lañuy jeexale sart yi nag mm, daa am sart yoo xam ne mooy tax mu war ci nit ki ak sart yoo xam ne mooy tax mu wér ci moom bu dee sart yi nga xam ne mooy tax mu war ci nit ki am na sart yoo xam ne nii dafa matale mboolem alal yi am na sart yoo xam ne am na ci yoo xam ne ci yenn alal yi rek la la la jagoo bu dee yi nga xam ne fogg mu eh, war na ci alal yépp matale na alal yépp sa yool ñaari sart la muy bi ci njëkk mooy kooku kii génne asaka war naa nekk asgor ndax bu fekkee ne ab jaam la kooku asaka waru ko eh, ndax ab jaam ak moomeelam dafa matut alalam sangam moo ko moom beneen bi ci topp tamit ngir mu war nit ki tamit war naa am lu mat nisaab loolu al lolo ci alal yépp la bude yi nga xam nak da jago yenn alal yi mooy lu mel tamamul hawl am at war na mat ci asaka ji waye lolou comme nañ ko waxe won dañ ko sart ci yenn alal yi rek moy lu mel ak jur ak khalis ak or ak lu mel commerce marchandise waye bu lu mel am bay ak mbell yi mbay mom mi ngi ware ci yawmul hasad bu dee yi mi ngi ware ci buñ ko ba satal ko hmm kon lol mooy sart yi nga xam ne mooy tax mu war bu dee yi nga xam ne nag mooy tax mu wér ci nit ki yooyu ñeent la bi ci njëkk mooy lislaam ak yéene ak jox ko ñu ko war a jox ak eh, génne ko ca même alal ja jam ware no kon bu njëkk bi muy lislaam kii génne asak kon war naa doon ab jullit mm, war naa doon ab jullit ngir asaka ji mën a doonte war na ab yéefar sax comme mboolem xeeti bànqaas ci sariyan yi ak liñ leen togg waaye nag wooree ci moom tamit du wér ci moom ndax deesul nangu asakaam jooju ci jamono ja nga xamee ne ca la weddee ndax ak weddi day sippi ay jëf comme ni ko sunu borom waxe ne la in ashrakta la yaabatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin hmm, li ci toppaat mooy nit ki war na koo yéene war naa yé buy joxe asaka ji da koo war a yéene ci ba nga xamee ne moom la koy joxe wala ba muy ber asaka ji da koo war a yéene kon fekkee yéene wu ko boobaa ah, asa loolu joxe googee du ko doy waaw ndax asaka daa nekk ak jaamu yàlla goo xam ne yéene mënu caa ñàkk kon bu ko yéene wu donte da koo réere wala mu fàtte ko boobaa loola uh, du du du du waaw moo xam nag lu mu yéeneel ko boppam wala mu yéeneel ko ki nga xam ne moom la yilif baneen bi ci des mooy da ko war a jox ñi nga xam ne moom ñoom la ñoo ko yayoo mooy ñi alxuraan tudd noonu rek ci aaya boobu innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiini wal aamiliina alayha wal muallafati xulubuhum wa fi rriqaabi wal gaarimina wa fi sabilillah wa bni sabili faridatan min allah kon juróom-ñetti xeet yooyu ñooñu la ko war a jox kon bu ko joxee ñeneen ñu bokkut ak ñooña kon boobaa asaka joojee du ko doy ba tey euh, da ko war a génne ci même alal alal jëm ko ware kon nit ki sañ tëjal ak jur di ko génneel am mbay wala mu jëlu mbay di ko génneel ak jur wala mu jël tàndarma di ko génneel raisin wala mu jël raisin di ko génneel tàndarma ba des xaalis xaalis moom sañ na ko génneel am mbay ak ak ak ak jur waaye nag ci wëlooram xiima ba waaye nag loolu dañ koo sib mhm. waaye bu dee xale bi nga xam ne nag bu dee ab xale wala ki nga xam ne dafa wéradi di xel ñooñu seen kilifa ñoom it asaka day war ci seen alal seen kilifa lañ sàkku ci ñoom ñu génneel leen ko kon bu fekkee ne kilifa ga dafa lànk bañ leen ko génneel moom moo cay bàkkaar waaye du ca xale ba kon day war ca kilifa ga mu génneel leen ko yéeneel leen ci kon daal loolu lañ doon bëggoon a tënk ci ay leeral rek yu aju ci asaka xam naa ba baneen yoon ñu mën a dikkaat ci yeneen i tomb wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.